si kii nga xamante ni mooy Sonko père Anna Diamanka maanaam daal kii nga xamante ni mooy journal bii di lii quotidien Babacar Dione di ko doon directeur de publication am nee na divorce Sonko père kii nga xamante ni mooy Anna Diamanka en tout cas doy na waar lu ko waral nag ñun fii ci VIP people suñu sukkandikoo ci li nga xamante ni mooy suñu ay investigation jàpp nañ daal kii nga xamante ni mooy ñaareelu Ousmane Sonko di Anna jamanka jamono ji daal dina divorcé ak li nga xamante ni mooy projet PASTEF en tout cas Anna génn ci projet bi nga xamante ni moom la ñu tuddee woon projet PASTEF ginnaaw bu mu gisee ni que daal ay feela yoo xamante ne yu choquant kii di Anna Diamanka di ñaareelu kii nga xamante ni mooy usmaan Sonko génnoon fi jamono jële moom ak Khady Kébé doon demande que Macky Sall mu delloo leen seen Ousmane ñu fajal ko seen bopp dafa mel ni kii di Anna Diamanka jamono ji daal dafa gis ni que daal lii nga xamante ni mooy usmaan Sonko. dal dafa dal décider officiellement abandonner li nga xamanteni moy bateau parti Pastef ginnaw bu mu dénoncé lii di ay pratiques toxiques jëmele ko ci li nga xamanteni moy parti bi nga xamanteni jëkkeeram du ci bopam di Ousmane Sonko moko diriger en tout cas muy ay cadre yo xamanteni ci Anna Diamanka la jogé di ñaareelu Ousmane Sonko muy li nga xamanteni tay mo gëna pire tay mi ngi koy japp ni dal ay sources yu digne de confiance dal di rapporter que li nga xamanteni tay mo entamé jëmele ko ci ay démarches yo xamanteni c'est pour mettre fin li nga xamanteni moy mooy mariage man nag newuma jamono ji sey bi tasna wala tasul mais kanta Anna jamanka jàppale ni que daal bàyyi na nga xamanteni moy parti Pastef lepp lo xamanteni ni Pastef mi ngi ko don def bu koy soutenir Anna jamanka di ñaareel Ousmane Sonko dafa décider di quitter li nga xamanteni moy navire bi muy navire Pastef mais ñen ñi nak ñi ngi yok ci suuf ñena jamono ji bëggul dara lu divorcer divorcé ak ki nga xamanteni moy Ousmane Sonko man nak bima ma sama investigation dembu jappana ni ka dal ana jamanka actuellement mi ngi fofu ci France te fu mu nekk ci France xam lim ko limtu xam la dal moom moom jamono ji mënatul supporter li nga xamanteni moy ay manipulation yo xamanteni mi ngi koy gis depuis bob batay mu trouvé wu actuellement fofu ci France guinard ay révélation la yo xamanteni dafa jeté li nga xamanteni moy lumière bu bess tax jëmele ko ci vraie personnalité ki nga xamanteni moy Ousmane Sonko jàppal ni que dal ben opportuniste la bo xamanteni dafa paré tay pour sacrifier l'idée di propre famille jëmele ko ci ambition politique Qu'il ci même li nga xamante ne tey xam nañ ko jëmale ko ci rejeté li nga xamante ne tey mën na doon loo xamante ni mënatul def confiance kii nga xamante ni mooy Ousmane Sonko en tout cas ki ko xamle di Anna jomanka di ñaareelu Ousmane Sonko ginnaaw ci boppam moom moo def parti jëmale ko ci li nga xamante ni mooy diriger benn réew ginnaaw bu mu fàttee épisode bi nga xamante ni bu sulfure la jëmale ko ci salon de massage bi nga xamante ni tey dafa indi benn haleine jaarle ko ci réew mi ak ñi nga xamante ni tey ñoo fi ñàkk seen bakkan finalement ci lan la mujj ay négociations yoo xamante ni kii di Ousmane Sonko bi taxoon ne xamul Adji Sarr musul dem Sweet Beauty fan la mujj ci ay négociations jëm ci ay amnistie jëmale ko ci ñi nga xamante ni tey ay erranements yoo xamante ni yu la jëmee ko ci moy Bassirou jamay fay ci ay question politique yo xamanteni ni sociale économique yo xamanteni ni amul benn étoffe xamanteni amna ni charisme ni charisme bo xamanteni ni mën na doon président ba chef d'État, mu doon ben période cruciale bo xamanteni de dañu choisir li nga xamanteni moy deug choisir stabilité choisir intégrité ñu rejeter lepp lo xamanteni de dafa sukkandiku ci fin ak manipulation jógee ci Ousmane Sonko ginnaw bu mu donné ben nation bo xamanteni dafa mériter mieux que ñuy voter li nga xamanteni moy sagesse voter pour un avenir sûr et prospère en tout cas muy ay cadre yo xamanteni ki di Anna Diamanka di ñaarelu Ousmane Sonko moko yëkëti mom dal dafa sonn fen trop dafa sonn taille ci fenn yi nga xamante ak manipulation yi nga xamante ni parti Pastef mi ngi koy amale depuis lors su fàttalikoo li nga xamante ni événement suite beauty di suite salon de massage bi gis ñu bare ñàkk ci seen bakkan Ousmane Sonko taxaw weddi fu nekk mu jéewul fenn lu dul li nga xamante ni mooy amnistie daal di négocier ba noppi daal di tànn ki nga xamante ni maanaam mooy euh, Bassirou Diomaye Faye kenn xamul nit la kenn xamul lan la bëgg ko def président amul charisme amul charité bi alors que Sénégal tay dafa mérité ñu tek fi ki nga xamante tay dafa mën a ci Sénégal ben avenir bu sûr en tout cas li ma leen ci indi lal comme information man bu sûr Ana Anna Diamanka a décidé de quitter naviru passef ginnaw bu mu gisee ay manipulation ak ay fen journal bi di li quotidien dal di koy bind ba nopi mom dal di ci sukkandika Ana Jamanka jamono ji dafa bëgg a tas Ousmane Sonko ndaxte mënul suul supporter li nga xamanteni moy Ousmane Sonko mi ngi koy def bëgg sacrifier lepp lo xamanteni famé famille mi ngi koy dund jëmele ko ci ay ambition politique yu dul jeex en tout cas moy ay cadre yo xamanteni Ana Anna moko yëkëti ko ba